am kii woote ba la République kooku kan la war a fan lay bonjour. oui bonjour kooku. oui ça va na nga def. ça va alhamdulilah kooku la. c'est euh, monsieur le ministre Habib Sy. ancien ministre Habib Sy. waaw ah, ministre non c'est pas la peine de dire ancien mais c'est le ministre Habib Sy. waaw monsieur le ministre lu waral sa woote ci biir palais de la République ci waxtu bi ñu toll nii. voilà bon dama yitte woon président de la République. président dafa jàpp. ok d'accord. Eh, est-ce que mën nga ma transmettre sama message. moo ma tax ma toog fii moo tax ñu may fay par weer. voilà voilà ne li nga xamante ni moo xew. lu coow lu bari li muy dégg. Eh, ci eh, kii bi ci commission bi nga xamante ni moom la jël boole pour ñuy saytu alalu réew meeg pétrole beeg parce que dafa waxoon keroog suñu réunion bi ñuy nekk ci pale bi. ne opposition bi d'accord na pour ñu dugg ci former benn or benn benn benn benn mbootaay boo xamante ni ñooy saytu alalu Sénégal bi. léegi rek. ñu dem ba ci biir mu am ay détails am ay coow te am ci ñoo xamante ni wax dëgg yàlla dafa mel ni dañoo lekk yoroxlaan. lekk yorox ah, ah, waaw. dañ ne yéen maanaam euh, information yi seen foofu ci ñi nga xam ne ñoo yor saytu commission bi nga war xam ne ñoom ñoo war a saytu affaire xaalis bi dugg ci feebar bi. waaw muy milliards yi. waaw dañ ne dafa am ay information yi seen foofu te yooyu nee nañ yéen opposition bi da ci biir. waaw génnu leen ci yéen ay euh, ja transmettre message journaliste yi ñu koy tasaare. alhamdulilah ba nga xamee ni euh, dëgg dëgg opposition bi moo koy génne du ñun ñii. parce que vous savez ñun ak Macky yàgg nañu on des amis ça fait très longtemps kon li nga xamante ne mooy tasam réew ak gars yi meew yi ñuy meew ci biir di ko génn di ko tasaare ci mbedd mi loolu rafetuwuma ko dara dara dara dama bañ nag mu jàpp ni man la wala ñi nga xamante ne ñooñ laa àndal di liggéey opposition bi moom moo ko def. mais yow yow lan moo tax nga génn ca yow lu tax nga bàyyi. bon li tax ma bàyyi mooy euh, damay bañ. ñu teg ma tuuma fekk man bokkuma ca. ah yow ku moom xar mi rek nga bàyyi buum. non si parce que damaa xam ni balaa xar mi di mbëkkee ma bàyyi buum gi xar mi balaa moo mbëkkee damay bàyyi buum bi parce que la fa am jaaduwul. man jub laa xam ak di denc ay secret mais secret de l'état dénk nañ la benn mbir ñuy saytu mais lu am ci biir rek nga weer ko ci mbedd ma. ma xam ne lii du cee yooyu raam ci ñag bi la jëm bala ma fa yegsi ma génn rocceeku ma ni information bi jóge foofu ñan ñoo koy génn opposition bi la mais opposition bi la waaw yow de da ma bokk ci opposition bi Macky c'est mon ami il a confiance en moi et man la man la jël def nañ ci may seen jiit ah am na yoo xamante ne bu ci neeram damay génn balaa moo yaakaar ni man maa lekk yoroxlaan ah déet affaire per diem 3 millions nangam yooyu ñu ne gars yi koy laaj ana lu ko génne. ah yu per diem 3 millions yi bokkul ci man de man yëgaguñu dara luy jëm ci non 300 millions j'espère que moom la wax. waaye eh. bien bien sûr 300 millions la ñu wax même 300 millions su fekkee war nay génnee noonu mais nañ nañ ko def ci suuf wax ko ci suuf mais lu xew parce que boo tàmmee boo tàmmee seen. lu xew sa kër sax da nga koy sànni ci vidéo. mais eh, eh, ministre. waaw lenn daal mën naa la koo xamal am réew daal xam nga lu koy doxal. lu koy doxal ay nit bu nu bokkee seq mu yëfi réew mi danoo war a tëj seen làmmiñ ñoom noppi liggéey. ça bien dit loolu la leen réew mi xaaree liggéey. ça bien dit dégg ma waaye nekk di nettali kee di wax fee kee di wax fee mbir mi tasaaroo. waaw loola jëmalewul am réew kanam ndax de gis na ma. waaw mais boo tàmmee boo boo tàmmee boo tàmmee seen nag. boo taamee senn da ngay senn. Ah. oui. senn googu laa sa kàddu gu mujj lan la. sama kàddu gu mujj neel président daal man sama sama dignité laa yor te moom laay doxee fu mu mënti nekk loolu ba mu yëgee dama rocceeku ndànk damay bañ mu yaakaar ni damaa gedd. te gedd ma waaw. ci sa dignité jooju laa lay waxee ne la votre correspondant peut-être pour le moment. va y appeler ultérieurement. en tout cas na ko wax sama message jeex na voilà.